ngay añee fa man yaamal misqaala zarratin xayran yarahu wa man yaamal misqaala zarratin charran yarahu kon nañu fexe ba yamale rek fi ñu war a yem ci cofeel yi shérif ñu ngi lay ñaanalaat su dul woon bañ rek bañ rek nga mere ma wallahi kilifa gi lay jox kàddu gi ndax yaa ma ëpp cër te terewul da ngaa ba sa cër ku la dégg nii nga waxtaane xam ne da nga ko paqueté pour bëgg ñoo jébbal lax yu nag mais amoon naa sama benn magu daara euh, ndeysaan ah muallim muallim Cheikh Wade nee na ma ci xutba juma defe naa ci xutba jumaa la ma wax ne ma ci laa jàngalee laxdar yu ci bayaan ba mu jeex ajjuma bu jot ma taxaw di bayaan laxdar yu naa ko ba mu jeex mais lii moo jaadu parce que bu ñu fexee ba jikko defaru rek penc mi jàpp ñoo am estabilité de vie chaque dunu kenn ku ne ci ñun yaa ngi am lu la métti tey loo xam ni amoo koo ko jooy ki ko waroon a jooy mooy jikko jikkoo yàqu innama al umamu l axlaaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat axlaaquhum nga infrastructure defaru réew réew mi balaa ñu defar infrastructure yi dañu war a fexe defar jikko yi loolooy tax li fi ab lay Wade bàyyi woon du ràppe ci Macky li fi Senghor bàyyi woon du ràppe ci Abdou Diouf li fi Abdou Diouf bàyyi woon du ràppe ci Abdoulaye Wade mais tey boo xoolee réew mi ku ñëw yaa ngi defar lañ fi liñ fi liñ fi defaroon li ko def mooy jikko xam nga ni ku fexe ba indi lu tolloog cinquante lamp lampadaire soixante cinq ñu installé ko ci koñ defoo ko sa buntu kër jaayoo ko leblewoo ko defoo dara nga indi ko ne nañ ko def ci gox bi dénkaane ko ñu toppatoo ko bi ngay daaneel keroog la comité waroon a taxaw comité boo xam ni ñooy saytu mbir mi ne shérif nag génn nga ci bis ni ki tey ñoo koy toppatoo yooyu yépp nag soo gisee pénc mi yàqu mooy jikkoo fi amatul nañu delluwaat ndax nag ku tëdd bàmmeel kenn du la laaj kuy sa sëriñ de kenn du la laaj foo bokkoon li ñu lay laaj mooy man rabbuka te des nga dégg ko gëree ne la la ma ràbboon jaay naa ko mais shérif loolu ëpp naa wax de xaraam na de kenn waru ko fawe kenn waru ko fawe lu toll ni man rabbuka ngay wax ni la ma ràbboon jaay naa ko ah boo sàgganee buñ la laajee sa bénéfice du génn de te njaay am bénéfice baax na ci de waa la ma ràbboon jaay naa ko mais da perte kon nañu bàyyi xel ni am na lu ñuy xaar ci kanam yàlla yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp Chérif ñu ngi la koy waxaat jaajëf waxuma jóge Thiès Thiès jege na bu ñu nekkoon ba Ndar wala Fuuta wala Nouakchott wala Gàmbi wala Guinée nga wooma waxuma conférence nga ne ma rek dama laa soxla amo wala maris walla Sacré-Cœur na la fa waxtu sàngam fekk xanaa tarde ci yoon wi mais dootuma defaat dara ca dëkk ba ma ne loola nag man maa xam li tax man juddoowuma ci kërug jaahil dofuma dama ne ku sëriñ Abdu wéetal am nga kilifa waaye li tax ma téye ko man maa ko xam gis nga kuy wër nit ku baax Chérif a ngi nii toog c'est un homme de véridique un de vérité koo xam ni wér na ma ni li muy doon doon sama sama sama sama kilifa ñu séq àdduna tey bu ma jàddoon yoon man wér na ma ni moom dina ma ko wax te loolu sax daf ma ko wax ne ma Hajj leen rek mooy sama cat dama am franchise ci ku may àndal lu ma la war a wax wax la ko ma ne ko mais man lii lay wër nit ku baax la ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën a guddal sa fan yàlla dolli sa taxawaay lii nga def lii nga def jàngalewaat na man boog jàngalaat na ma lu bari ci yow mooy ronu bii ñu ronu tànt bi ma xam tànt yi ñuy ànd te wér na ma ni ci lu matul ay fan yu néew dina tukki gannaaw suba sax mën naa ko wax dana génn réew mi dem teewe jiwaat lu mel nii ndax nit ñaa ngi préparé anniversaire u Cheikh Al Hadj ci biti réew nit ñaa ngi préparé yeneen programme te ma nga ca jëm kon li nga bàyyi ba ñëw fekk nit ñi fii lii dafa wone ni yow yaa ja nit ay jàpp ni yan ca kaw mais yow yaa ngi ci suuf te ku bëgg defar nit ñi dangay wàcc fekk leen fi ñu ne ànd ak ñoom professeur bi bëgg a jàngal xale yi loola metre bi jàngoon na ABC ca ba muy doon xale mais buñ ko joxee CI bu leen bëggee jàngal day wàccaat mais bu bëggee ne man eh, dama kawe xale yiñ ko jox du ñëw kon ku bëgg defar nit ñi da ngay wàccaat kon lii dara newu ci te alhamdulillahi rabbil alamin daara ji léeg-léeg nga yor benn téere ñëw fekk Ahmed toog Ahmed nga téye ko tàkkusaan ba timis ci benn téere muy tëral di wëlbati nga naan ko doyul téere boo ubbi pare mu topp ci yow kenn nit waxuma laaj nag ku la toog loolu lu ëpp ñeent fukki nit ëpp téeméeri nit kon ñu ngi lay ñaan yàlla na guddal sa fan yàlla dëgëral sa taxawaay dolli sutura lii rek moo nekkoon kàddu gi bëggoon nga bég xam naa ni suñu kàddu doon na nekk mbégte ci moom su ko defee nag asayid eh, Ahmed فرحنا جدا باجتماعنا في هذه الجلسة المباركة ونطلب رضا الله القالخ أيضا أن يشملنا أزلا وأبدا وأن لا يكون أيضا هذه اللقاء آخر لقاء لنا بجاه جدكم حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Chérif ma wax la maa ngi moom tey lañ mas a toog nii de wallahi alazim tey lañ mas a gisee mu ngi may xëñ na seetaan man it maa ngi koy seetaan mais nag sama benn xarit boo xam ni yéen bokk liggéey eh, jaay oto moom moo may wax toujours ay nouvelle am léegi léegi maa ngi koy dee mu ne Moustapha sama waay la tabaarakallaahu eh, kon bëgg nañu Chérif defal na ma lu rëy tey parce que maa nga xam ne ñu ngi déggante rek waaye gisante mais te insha allahu rabbuna wallahi wallahi wallahi wallahi xame bi li muy am yépp tey lañ soog a toog mais nag naw naa ko lool ci yitteem ak góorgóorloom yal na yàlla dolli sutura surtout nag simplicité bi yëf yi loolu moo ci am solo kenn amu fi laaf di naaw ku fi wut ay laafit da ngay naaw ba ci kaw dunk yu ruus nga wàccaat te booy wàcc mën naa am nga daanu comme ni càkkaaba di daanoo te yooyu wuurul gars yi Cheikh Al Hadj Malick maamam daf ne kajoor tong nañ ma waaye maa yéegul Maodo ne kajoor daje nañ pour tong ma maa yéegul lu ñu wax rek Maodo ne baleen ma ci suuf nii dara newu ci nga ne séri fa fa ne du ma danaa dem wéttali jikko moo tax bi nga yegg seen ndaje mi dafa couleur waat dafa taar taaruwaat lii moom nu mu tuddati pap da ngay fexe di coordonner shérif ak sawaay na datu shérif di tombe ak datam ñu mën ko jàpp mu koy teewee kii bu xasee ba ñëw rek ndaje mi couleuru na shérif bëgg nañu kontaan nañ Sidi Ahmed ñu ngi lay ñaanal sama rakk bii nag shérif soppeem ak euh, kii ci yow moo tax tey tabaarakallaahu mu ne ma faw ñu àndandoo dem fekk si shérif Eh, bi Ablaye Wade ñëwee Thiès Serif wax na dëgg man mii maa dalal keroog Ablaye Wade moom mii moo tax ma jot Ablaye Wade téléphone après bi nguur gi jeexee ba ab Ablaye Wade ñëwee di ko jaale si baayam xaalis ba na mu toll bi mu ko ko doxee rek bi mu ko ko joxee ci sama loxo la ko teg ci saase maa yóbbu xaalis ba man maa xam nu xaalis ba toll ba indiwaat ko seen kër dara nag du ko def te boolewuma ci sommet OCI bi ñu doon wax. man mii moom moo nekkoon Thiès di àndandoog ñii doon liggéeyal Karim Wade maa njëkk a organiser cérémonie religieuse ci sumi aussi yi ci biir Thiès organiser naa conférence boo xam ni ay millions lañ ko jox mu yëkk a teg sama loxo ba tey xamul fu xaalis ba jaar ne ma organiser leen ci conférence te nag Chérif xale la am na ci aajo am naa gàmm mu dem boobu ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi mu toppatoo toppatoo ba lijjantil ma ab chèque bu def cinq cent mille francs mais comme affaire politique see la ma ragal ndax biñ nee suba la la ko indi àjjuma ma ne sa waay dóor na ma rek leer na ma bëgg ma gërëm ko mais lii du chèque bu baax chèque bii ni ma ko gisee dafa xaw a tilim ndekete chèque bi baax na man bi ma gisee sax dem naa ba bëgg a fomm gàmmu gi loolu yàgg na mais Ahmed samedi lañ gàmmu man kàddu gu gàtt laa wax samedi pour lépp mille bi laa bëgg a dem retirer ji dimanche nelawuma xam nga nelaw yi dimanche. dimanche man nelawuma maa ngi toog rek eh, di xool montre bi <laughs> ba dégg ñu ne asalaatu xayrun mina nawm mi jul ma julli ji wasifa wasifa wu ma del si kër ga toog parce que dama bëgg njëkk leen bi ma njëkk ci maanaam numéro un sax maa ko weesu keroog <laughs> avant ñu dagg ticket fekk man yegg si naa maa njëkk ci banque bi bi ma yegsee man maa ngi naan booy bi ren nag laa ko nar a bàyyi waaw kii chèque bi normalul rek bàyyi naa ko ma taxaw bi ndaw si ne billetteur bi ne ba seen bouton yooyu rek premier numéro affiché bi may jóg di dem ayatul kursi def naa li ma jàng keroog mat na junni ak juróom-ñaar téeméer lépp chèque bi lay mocc <laughs> ma yegg si taxaw bi ma xam nga sa carte d'identité lañ lay laaj ma jox ko carte d'identité bi ndaw si xool delloo ma carte d'identité bi ma ne musiba am na de mu ne ma indi chèque bi chèque bi la njëkk a xool bi mu xoolee chèque bi ne ma indi carte d'identité bi ma jox ko carte d'identité bi mu enregistré pare delloo ma ma seen mu roof loxo bi ci suuf génne bi mu paquetee ba tegal ma après naa fi la ci kii dagan na ci banque damaa génn rek sànni ñaar rakk boobu ma oto génn jël benn faf sam benn wala ri ma yóbbaale ne ma foo jëm ma ne ko jaxaw te man Cité Senghor laa jëm ñuy daw yegg sàmm mu ne ma waaw sëñ bi da ngaa ma ne ko wax nga dëgg jax kër gi damaa juum mais Chérif xale bu baax a ngi nii bëgg ma nag Cees yëpp xam loolu Cees yëpp a ko xam baayam dafa toog mu toog ñëpp toog la classe politique moo doon def organiser mu ne ñëpp buñ ma teree politique du ma bàyyi mais kii bu ma teree ma bàyyi Chérif ku yegg ak yow foofu jox ko sa lépp ñu bëri da leen di jaaxal nu may fréquenté parce que politique sain la man may nitu diine ma ne leen mais mbëggeel lu ko nit mën a jare te moo ma fekk ci jotaay nuyu ma ne ma dama laa bëgg te yàlla tax kooku est-ce que am naa lu ma ko fayeet moo tax nee naa ko même boo duggoon ci lu niin dañuy àndandoo maak yow ci loolu waaye nag bu ca yàgg damay génn <laughs> moo tax temps yi nee naa ko na nga góorgóorlu xool fi nga jëm nag parce que sonn naa de ci territoire yi te man daara laa yor <laughs> yal na yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aoudu billahi min alsheytani irajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bu ñu sant yàlla jullit sayidina muhammad mu mel ni jataay bi def nañ ko ci aqwaal def nañ ko ci lafaal def nañ ko ci laxwaal aqwaal yi moo doon publicité bi ak yëgle yi afaal yi mooy tànt beeg bâche ak organisation bi axwaal mooy mbégte bi ak kontaan yi ak njariñ yi te defe naa ñett yépp daje na ni nuyu borom jataay bi muy Chérif Ibrahim Haydara li sëriñ Malick wax tabe ba tabe jeex tabe ci dara jaaji gën lii mu mujj way maa kaana taxtaaju tabiinan shajaatuhu ahlal madinati saa il layla fadaxihimi Seydi Hadj Malick nee na fitu yonent bi jarul jàngale coow li coow li nee na jarul jàngale jàngale na lu nekkam nag waaye nee na fitam jarul jàngale maakaana taxtaaju tab yii na mu di nag leen rek laa lay wax ëhlal madinati saa il lay la fadaahimi waaye nag shérif te ëhlal madinati ëhlal géeje waaye saa il rek maanaam di wax jukkoom sax ma ko laajal waa géeje waaye rek te dafa am lii mu doon jàngale laxdar yi bëgguma woon ma arrêté nit ñi foog nañ ni xam-xam balaa bala moo génn ngay yuuxu di di daw déedéet ngiiru Maalik amul téere bu ñuy jàngale te jàngalewuñ wuñ tawxiid ba pare amul du risaala du muqaddima tawxiid lañ lay jàngal ndax xam nañu li mu wax sànq ni boo ko jëfandikoo ñeent fukki guddi nekk wàllu mooy li mu doon wax léegi te nee naa Sénégal li mu ci wax ci jikko loo ci wax am na lu de shérif américains yi dañoo defar benn machine buy détecter sàcc ñu dem Maroc taal machine bi mu mu jàpp mu détecté trois mille six cent sàcc oh. ñu ñëw Mali machine bi détecté quatre mille trois cent cinquante six sàcc ñu ñëw ndakaar Sandaga ñu sàcc machine bi xaw ma ndax dégg lee bi moom waaw dañ ko sàcc dañoo sàcc machine bi. maanaam jotu fe sax détecté foofu xam nga machine boo waroon ne détecté ba mujj koo détecté moom ci boppam loolu nag loolu nag foofu la jikko yem te lu yéeme yéeme la xam nga Chérif wax na lu wax bu gaaw bu gàtt nit ñi bàyyoon ci xel mooy nit ñi fase ci Sénégal romb na waaye nit ñi sa bàyyi xel xam nga séeréer lu mu leen lu mu bëgg nit ñëpp jàppandoo ko jigéen bu merate bul ne may ma sama baat soo ko waxee sa jëkkër su leen laa may naa la sa baat maanaam bala laa mën a jëlaat beneen góor takk la ba pare xab lu ki ala gaari bi ka lay firi sa buum mi ngi ci sa loos am na sëriñ su ko xamul nag di lii mu wax di nga ko laa sëriñ ci tele bi mun la loolu benn fase la déedéet te lay tax loolu jëkkoo koy waral maa ngi koy wax démb ndeysaan benn sëriñ dafa may taalibeem jabar mu fase doomu sëriñ bi sëriñ bi laaj ko soxna si lu mu la def mu ne ko yow sëriñ jëlal rek de man koy baal ma rek jël rek mu wax wax ba bi mu sësee nag mu ne ko sëriñ ndaw si dafa am juróom-ñeenti jikko yoo xam ne benn neexuma ci ndaw si ne ko papa day fen mu ne ko ak boobu muy fukk maanaam da ko doon limal ni ndaw si juróom-ñeenti jikko la yor yoo xam ne daal benn neex ko ci mu ne ko papa day fen mu ne ko ak boobu muy fukk ma ne ko yow ci juróom-ñeenti lañ la doon bëgg a bàyyi nga mottali ko foofu foofu kon kay jikko dañ na te li am li doywaar mooy maam Abdou Aziz mii ñu doon wax léegi parce que shérif ku ko xam daanaka bu ñu tuddee maa Abdou rek saxal day dem ci shérif ndax di bëgg bëggul nit ba mujj daanaka ñëpp askane la ko léegi rek bi ma xoolee micro bi ñu ci bind Dabakh TV keroog bi mu ganee àdduna ci ñëwub la mag laay wax ndax ala suba rabbikum xaalu bale ñëpp ko waxanda woon sëñ Babacar nee ci laa xool seen xaaj maa man yàlla këlee góor gale bu ma sañoon ëllëg bu ma demee àdduna mooy doon sama baay moo tax ku yaakaar ne yëf yi fii lañ koy négocier xamoo lu xew de mag mi nee na ma boo gisee Sénégal du ñu dem parce que xam-xam jafe mu ma doom ngeen def ni tabadeedaa bii ngeen di jàng mooy tabadeedaa ma ne ko waaw man ma déedéet lii du tabadeedaa de déet mu ne lii kay xanaa kenn mosu koo jàng tabadeedaa mu ne ma lu ñuy wax tabat yadaa abii lahab mu ne ma taagi mooy tabaarakallazi bi yadihil mulk baagi mooy baraatun minallaahi noonu ko koy toppe ba saar yu jeex mu ma tànk mënoo koo génne xam aaya bu nekk ba mu àndal mënoo koo jàng tabat yadaa mu ne ma loo ci bëgg a faj-faj ko maa seedu ceen Saad Nuuru ñëw Seydi Xaaj maa ni ko koo doon seen mu ne ko gan gi mu dugg ci alaajul Abdul Aziz yàgg fa génn si de xaj maa ni ko da yàgg ci biir mu ne ko gan gi laa doon waxtaanal mu ne ko lu nga doon waxtaan mu ne ko dafa ne ñett ko fi indi diina jëg tariixa beeg mbokk gi mu ne ko kon nañ ko ñaanal ndax nar naa sonn démb la ma euh, sëñ Sidi Ahmed nee na maam Abdou dafa am daayira bu daan ñëw at mu jot di indi enveloppe waaye daan nañ ci boole warga nee na am bi suñu indi enveloppe bi mu am ku mu ko dénk bi gan yi demee faat ñu fàtte war warga wa mu joxaat ko enveloppe bi mu gën a woyof ba ko koy jox maanaam enveloppe bi bu diisoon bi ñu ko koy delloo gën naa woyof mu xam ne am na lu ci jóg mu ne ko ah, diw enveloppe bi dafa mel ni bi ma la ko jox la gënoon na diis mu ne ko man xaw ma lu sàcc mosuma jël nee na alaay abdu ni ko pourtant moo ne daan na ànd ak warga waa ji fëgg ni ko sëñ bi warga dañ ko fàttu mi ngi nii rek alaay abdu yuuxu daanu di jooy ni ko diw baal ma àq yàllaa ngi la suturaal man abdu aziz ma lay wees di jooy di ko baalu pour waa ji jéggal ko rek ndax lim ko ni enveloppe bi gënoon naa woyof am jamono bu gàmm pare danaan séddale Abdou Aziz moo ma ko dettali bu tërandoo sëñ Abdou nee mu ni Pape Makhtar seddalee ndekete am na ci góor xam bi ko Pape Makhtar joxe daf ni ko moom lii rek la may jox après gàmm lii dong beneen yoon di sax mu ko moo gën na Pape Makhtar ne ma séddale pare ñëw fekk El Hadj na mu ne ko Abdou euh, Makhtar séddale nga ba pare mu ne ko ko waaw ana diw moom lu wax ka ne ko lii rek jox mu ne ko ah moom kay kontaan na trop. wax dëgg yàlla nee na daal mi ngi sant mu ne ko maxtaar wax ma lim la wax bi mu naan la ndax lii rek laa ko jox ba benn yoon naa ko téye fii la ma wax ji fekk waaye mataa jëlal lu toll ni la nga ko joxoon nga doublé ko nga yóbbuwaat ko nga ne ko na ma baal àq man Abdou Aziz nee ko rek dañoo juumoon waaye na ma jéggal te jëlaat di boole ko ci la ko joxoon moo tax bu ñuy xeeb téere yi bërki démb dama mer ma ne leen ñiy génn ci teeb naan ay laxdar yu dafa xeew man de ku ñëw ma laaj ci ci laxdari loolu tontu te fa may tàmbale mooy bismillahi rahmaani rahim baa gaja den ci suuf alif kii lu tax kenn du ko maas kenn du ko bind ba pare ñu ko ci bindaale kenn du ko liir iqra bismi rabbika ndax mi ngi ci nekku ci waa bismillahi ne loo tax ñu guddal alif gi siin bi lu tax ñetti bëñ la am amul ñeenti bañ mënoon naa nekk pourtant trois bañ mënoon naa nekk quatre mënoon naa nekk deux bañ rek lu tax yàlla def ko siin ñetti bañ xalil ñuy wax naan dafa xewi moo wax ndax dagan na nga am jaay ci kaw xal yeju su bàyyiwul xawaay boobu étage daa xew ba ñuy bintéer bi étage xewul mu ni ndax am nga droit am sa étage ki kaw nga jaay ko dëkk ci suuf mu ni ndax ngay étage kër gi nga dëkkal bu sa fenêtre am nga droit tijj ko sa kër dëkkandooti laajoo ko avion ba pare nee na bu ñaar dee sàcc kii dugg ci kër gi jël kees gi teg ci fenêtre bi waa ji teggee ko ci fenêtre bi teg ci suuf ñoom ñaar kuñ ci war a dagg loxo ñaari sàcc la de kii moo ko jox waa ji ni ko sawaay pare nga mu ne ko waaw mu jël ko teg ko ci fenêtre sawaay jëlee ko ci fenêtre boobu teg ko ci suuf léegi ñoom ñaar kan lañ ci war a dagg loxo xale li waxute ata ñoom ñaar ñëpp nañ dagg seen loxo waaw ñu ne xale dafa xewi parce que lan la dañ koo tënk alxuraan dañ koo tënk benn téere la di sharha yi kay bari waaye alxuraan benn téere la xale li mu am ci sharha kenn xam nu mu toll moo tax benn mag dafa ne woon xale la man benn sunu sëriñ ni ko ñaar laa laaj wa fakko baadin fakko rëhnin ak wa mukki mu ne ko ñett yi rek laa lay laaj ci xale fakko rëhnin ak fakka baadin mooy ku fàttaliku la ci biir la ak ku fàttaliku farata ci biir farata ak ku fàttali farata ci biir naafila ak ku fàttali naafila ci biir farata fafa fan na ak nafa nan na nuñ koy lijjante nga mën nañ koo lijjante mooy ku fàttaliku farata ci biir farata noo koy defaree fanna ku fàttaliku farata ci biir naafi la nafa ku fàttaliku naafi la ci biir farata nan ak ku fàttaliku naafi la ci biir naafi noo koy defar ñu ne lan loolu dafa xew dër yu mii dafa wax lu ñuy tuddee am na lu ñuy tuddee bawlu am mas yu am man yu waaw saw lu tax ngay wisu rek mas yu lu tax ngay raxasaale sa awra man yu lu tax ngay raxas sa yaram yëpp xanaa yépp du ndox ah déet damay laaj kat tiim du tiim moo remplacé njàpp waaw booy tiim dox doo masaa sa nopp ak sa bopp ak say tànk nga ne daa xew ñun la boo tuuree ndox amul bànneex raxasal cat li mas yu balay génn wala wat yu mu am bànneex nga def inaas ñun la comme awra yu jugaale na raxasaale ko man yu nag sa yaram yëpp a koy yëgandoo ñu la booleel yaram yëpp raxas maaleykum salaam. tax li sëñ Abdou Al Amin daan wax yàlla yàlla am ko ti ko ñàkk xam ko sax ko gën. téere man de ku benn nag seetlu naa ko ci jafe gu mu tax nit ñi bëgg fee bàyyi dem seen yoon. waaw kay parce que dafa jafe. boo gisee manteex boo koy jàng ci bopp bi dafa am ñu ko xaraamal. parce que dañ ne manteex dafa araama jàng parce que ñoo kooka da koo jàng sëriñu ñu bari la tey da koo jàng mënu koo dégg mu ne xaraam parce que nit bu jàngee manteex lu ko nekkul alaaji Maalik nee na la xilaasu sax munoo koy xam ti jàngoo manteex huwa jinsul aala maadinu sutumi jins yaa ngi koy jàng ci manteex ndax alkulliyaat xamsatun duuna intixaas jinsun wa faslun aradun naun wa xaas mu ne jin jins ñett la jinsun xarib jinsun baid ak jinsun mutawasit mu ne jinsul ala maadinu sudumi waaw boo jàngul mantex nooy firee jinsul ala maadinu sudumi da ngay mën a xam yonent bi nga ne mantex kenn waru koo jàng li Chérif wax la sunu mag ñi ko yeboo bàyyi leen benn jigéen dafa dem màkk ca màkk la ko benn xale bu góor mu yenu sayu matt bu diis xale bu góor ni ko bàyyil ma yenu la ko mu yenul ko màggat mi kër gaa nga sori naaj waa ngi tàng ba egg si ci kër gi mu wàcce ko màggat mi ko sama doom aw ma lu ma la sarax aw ma lu ma la jox waaye naa la dénk ay ndénkaan nga yóbbaale ko soo demee am na ko ñu tuddee Mouhamed am njabarkat la li ma lay dénk daal bu ko déglu bu ko wuyu su loo wayee lànkal bu la santee bul def mu ne ko waaw bu dee man mii la loon maay Mouhamed nag mu ne ko bu dee yow de yaay Mouhamed bu dee yow mii yaay Mouhamed kon de Mouhamed a fi gën a an laa ilaha illa wa ashadu anna Mouhamed rasulullah ci ko yan sayu matt bi xale bi yan kook naaju yeeg tàngaay bi bi mu ko sëppalee ca këram soxna si ni kon nag aw ma xaalis bu ma la jox waaye danaa la dénk ay baat yu la yu la nar jariñ ndax dégg naa fa njabarkat bu ñu ni fan yi feeñ fa ku tudd Muhammad nee na nee naa waaye nag bul ko déglu ndax lu mu la wax njabarkat la bu la yónnee lànkal buy woote sax bul fa dem yow fa mu ne ko waaw yaay booy jël jërëjëf waaye bu fekkee Muhammad moom ngay wax man mii la nag mu ne ko bu dee yaay Muhammad di ashadu an laa ilaha ashadu anna Muhammad rasulullah ndax jikko yii ñu lañ ma doon wax ci moom ak jikko yi ma wan bu fekkee ne yow yaay Muhammad loolu la Chérif doon wax li coow li bari bari jikko yi doo nga fi am njëriñ mu doon wax léegi ci saaga dañu mës a nekk classe maître bi ni na kenn ku nekk wax baat bu gën a gën a garaaw ci classe bi tey moom lañuy bind am ko yëg ni ñafal sa ndey fële day ñu baax la mu ni eh mu ni ko de saaguma di dama ni sa ndey ñaka fal te nekk fële ñu baax lañ mooy ñafal sa ndey fële ñu baax la ñaka fal keneen ke ni ko ah katal sa ndey fële day ko baax la mu ne ko saabu dama ne ko sa ndey kakatal ba di ko toppatoo te nekk fële ku baax la mooy katal sa ndey fële ku baax waaye saaga tax na boo ko waxee ñëpp yuuxu pourtant wolof la doon làkk wolof doo ko sa ndey fële waaye ne ko fal te nekk fële ñu baax lañ beneen bi mooy maa katal te nekk fële ku baax la moo tax boo koy wax boo gaa wax ci kanamu kilifa wala bala ngaa yeggal dóori baaba naare dana la dal waaw baaba naar daa métti ba ñu doon seetaan di xam waaw est-ce ku fekk dóori ba mu yàgg nga daanu ndox dóori métti moo tax nag jikko yooyu la shérif doon wax ci jataay bu toll nii li ñu wax nag yàlla boo gisee mbooloo fu mu ko tudd ci arxaan la mu cay teg baaxul ak saranaasi laa yàqtuluuna laa yafalamuuna laa yafqahuuna mbooloo amul njariñ mbooloo mu tuuti te am quantité ñuy déglu moo ëpp njariñ mbooloo mu bari wa xalilun min ibaadiya shakuur yàlla nee na sax même ñuy sant sax boo xoolee barewul wala yusalluuna illa fi shi'aabi ida mashada usru fa yusrullahi fi amri kon te bu leen defe ne mbooloo amul li gis nga rajo bi ba mu xewee ba léegi dana gis ku ñëwul ci jataay fekk ma nga biir ndéegam di déglu moo tax kuy wax ci rajo rek bul foog ni ñii ngay waxal am na ñeneen ñu lay déglu ñoo xam ne wax ak ñoom dinaay dégg shérif di wax mu ne même booy wax renseignement yaa la wër amul lu fi nit di wax te fanaanewul léegi jëpp moo tax benn mag nee na rajo ku ñu ko tàbba ci sa loxo ba tax ngay rajo ko war ngaa tàbbi dégg nga ku ñu ko tàbb sa loxo ba tax ngay rajo di nga tàbbi fu ñu la safool te la tax nga soof ni yaa ko wax ci nit ñi te yëgoo moo tax jikko yu mbokk fokk ñu defaraat fokk ñu defaraat jikko yi wax naa ko ci xuddu ma ne leen ba ci eh, ay milliards wolof nee na alal su màgg gaawee juddu ba rafetul xaalis du jóge ci kaw asamaan ma ne leen ku sàcc onze milliards buñ ko tëj ndax day génn lekki onze am nañ ko bàyyi te jox ko benn te jël neuf yi kay <laughs> delloo ko ci kees gi waaye tëj bi lu muy jari bu paree lekk xaalisam kay ah. yoo koy bàyyi ko benn bi rek te nangu diisi ni ko am jëlal benn bi indi diis yi ci des tey dem te bàyyi ko nag loolu nag wax dëgg yàlla shérif ñi ngi am mbégte imaam Malik dëgg yàlla arab yi dañuy wax ne wal udnu taashiqu qabla al ayni ahyaanan wolof nee na nit mun a namb ko mu xamul waaye di nga dégg nit ba yàkkamti ko gis ndax xam-xam su génnee fa mu war a génn rek jëm fa mu war a jëm te jataay yu mel ni dafa jafe maanaam jataay bu riche jataay dana xumbati du riche ndax lu gàtt gàtt bindu lax dara yu bii fi daw man de xaw ma ndax dégg ngeen firime walla déet xaw ma nag waaye bu ngeen déggee wax ji ak yi mu àndal di ngeen xam ne maanaam doyoon na sëkk jataay bi doyoon na sëkk sëkk sëkk jataay bi warta toog ba ni xataa yéex di neex la jullit du ni damay toog ba yàlla jubal ma Serigne wax na ko hmm. ku la wax ni dew dee suba ñun ñi koo ci wax defe na ni dana fekk déew kenn xalaatu ca dee suba moom ndax neen loolu ci texee da la bokk iblis dafa fekk benn nitu yàlla mu xàcc yat ni ko am nga chance bu du woon li ma desee at ci kaw suuf ma dóor la nga dee waa ji ne comme dese naa at mën naa njaaloo tuuti foo tuuti mu commencé njaaloo ci suba ga mu dee daf ko nax bi gis-gisu xol bi Chérif di wax nit am na loo xam ne daanaka nitu yàlla yi dañuy dem a dem a dem ba ñoom bu ñu sañoon sax ñu dootuñu gisati bë bëti kanam moo tax Muhammad ibn Arabi Hatim bi ñuy findi ni te euh, bopp sootul baqara inna lazina kafaru mu ni mooy nitu yàlla yi mooy ñoom sëñ Babacar ñoo inna lazina kafaru kat inna lazina kafaru sawaun am lam tundirhum laa yuminuun xatama laahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa lahum azabun azim mu ni mooy nitu yàlla yi mooy ñoom si Cheikh Ahmad Tidiane ñu ni ko déet mu ni firi mi ñaar la yonte bi ne li kulli ayati zahirun wa batin wa haddun wa mutala mu ni alkufru loo xam ne azulmatu mooy lëndëm zahir bi mooy ñi weddi lazina kafaru ñooñu sawan alayhim amdatu an lum tunziru la yuminuuna ñu ngi seen xol tëju na dootul feeñ xatama la ala xulubihim seen nopp dootul dégg mu ni wa ala samiay mu ni seen bët dootul gis mu ni wa ala absaari mu ni waaye boo xoolee nag contraire aaya bi yonte bi nee na az nee na alkufru luxatan az zulma yon yàlla aw awliya i tax taqaba bi samay wàll yu maa ngi leen a sama suufu ndëggu tànk ca lëndëm ñooña fa ñu yegg ci ngëm ci ngëm sawaun alayhim andartahum am lam tundirhum laa yuminuuna imaanan ak mimma amanu moo xam waar nga leen wala waaroon leen fa toll ci ngëm mënoo leen a wax lu dépassé seen ngëm lay si naa lin waxoon ni law kushifa lii alghitaau masdatu yaqinan buñ ma xaraloon asamaan sax li ma am ci yaqin dootul yokk nee na ñooñu foofu lañ yegg ci ngëm moo xam yaa ngi leen di xupp wala xuppoo leen ñooñu moom yegg nañ xatamalaw ala xulubi mi ne bi seen fees xol fees ak yàlla la la ko yàlla tëj leneen dootu ca dugg wa ala sam'ihim mu ne bañ dégloo yàlla lañ tax mënatuñoo déglu ko dul yàlla nee na wa ala absaarihim ghishaawa ba ñu amee mushahada ak seen borom la seen bët gën a mënatuñoo xool keneen te nee lool loolu li mu neexee ci ñoom bu ñu leen ca génnee wala hum azabun azim mu ne bu ñu leen ca génnee ci neexaay booba mbugal lay doon ci ñoom moo tax yonent dem al isra al dem ba jàkkaarloog yàlla xool ci kanam gis yàlla xool ci ginnaaw gis yàlla xool ci ndeyjoor gis yàlla xool ci càmmoñ gis yàlla teen gis yàlla sëgg gis yàlla bëggatu ñibbi si yàlla ni ko dellul ci kaw suuf yonent bi lànk mu ne ko boo taxawatee di julli yaa saw xeet maqaama bii nga agsi ba bëggatoo ñibbi ma roof la ko moo tax mu ne wa joxe la xurata ay ni fi salaati waaye lu gën a metti dem xool ak yàlla ba pare wàccaat ci yéefari màkka yi ñu lay wedd di la dégg Abu Jahl ni ko demoon nga ci asamaan mu ne ko mu ne ko yëkkati sa benn tànk mu yëkkati mu ne ko yëkkatil bi ci des mu ne kon damay daanu mu ne ko yow mënoo yëkkatee doo ñaari bëgg a dem ci kaw asamaan xam nga xelu saay-saay fa la yow kon eh, wax dëgg yàlla shérif ñun dañuy lay bëggee barki démb rek man ak moo am nañ ci téléphone lu jege waxtu di waxtaane lu nekk te wax dëgg yàlla eh, nit seddeel ko rek li nga gis ci moom mm-hmm. nit seetle ko rek wa ma shahidna illa bi ma alim na li ngay dégg ci mooy li ne moom te dëggul wala lay wax kon eh, dañu lay ñaanal waaye jataay bii nag sa jataay la ndax sëriñ Pape Fall bii Bruxelles man ak xaaj Chérif at mu jot ñu dajef boo ñëwee Pape dootul am jàmm dootu am salaam otoom lay jël guddi ak bëccëg mook am su baax si fu gan yi jëm Pape a leen di yóbbu alxaaji Maodo ja sama doomu tànta la moo Pape daanaka benn lañ duñu ñu ko guddi duñu ñu ko bëccëg jataay bi man ak alxaaji dut kenn ñoo waroon a ànd dem naa këram bërki démb ajjuma fekk yaram wi xawoon na sutante ba mu ngi tane bu baax mu ne ma nag waxal ma Pape médecin bi moo ne bu ma génn naa ndax dama nekk ci repos médical waaye su su demagul su ma yàlla maye woyof rek dinaa ñëw seetsi ko saam mbuub léegi lañ tàqali ko parce que moom ñoo waroon a ànd ak man ak Duda ak Saam ñoo waroon ñëw ci dataay mu wax ñu nag ne woo soxlawuñ leen fa pour way soxlawuñ leen fa pour waxtaan ndax ñu koy wayee nga fa ñu koy waxtaanee nga fa waaye yéen teew leen rek nit ñi gis leen ngeen dem xam nga kóllëre ak ngor foofu la tàmbali foofu la yem saam ni ma Ahmed ñoo waroon a ànd waaye Abdou Aziz Mbaye léegi la ma yebal ndar kon waxal ma Duudu ne ko moom bu bu xewlee te ñun ñett ñëpp gisandoowuñu rek ngànt lu ma ko tax moo tax nag man lu laa jóge bi may quitté Louga 13h jot na waaye ñemewumaa wuute bisam bii ñemewuma ko ndax lu tax koo ni xaw ma nu ma koy def nam la defa tax te nag dañ ñuy teral ngir Alaaji maale kese waaye gënuñu leen nag déedéet Sëriñ Xaaj Maalik day firi alxuraan ba mu yàgg am ku ne ko Maodo dama lay laaj ku am jabar muy njaaloo te mënu koo bàyyi loo ci xam loo xam ci li ñuy tuddee ñaqu tëgg loo xam ci lu ñuy tuddee géwal bu la fekk ci mboole di la tagg loo xam ci ku ñuy tuddee dëmm alaaj maa ne ko ku am nja soxna muy njaaloo te mën mënoo koo bàyyi day nga suturaal ko te téye ko ndax mën nga koo bàyyi sa xel dellu ci moom nga dem njaaloo ak moom yàlla jam la mu ne ko si loolu man la dal alaaj maa ni ko tooñ nga ma tooñ nga yàlla tooñ nga mbooloo mi tooñ nga sa jabar tooñ nga ma ndax su ma xamoon ne bu ma la tontoo lii nga may wax du ma tooñ nga sa jabar yàllaa ngi ko suturaal yaa ngi ko weer tooñ nga mbooloo mi fu ñu gisatee sa jabar seen xel dem ci ñaaw li nga ko waxal tooñ nga yàlla nag ndax yàlla bëggul ku xawi sutura ko xawi nga suturaal mu ne ko loo xam ci lu ñu tuddee ñaqu tëgg mu ne ko bu dee ñaqu tëgg baaxul ñaqu maçon baaxul ñaqu tailleur baaxul ñaqu uude baaxul ñaqu karaat baaxul ndax yonent bi nee na ki liggéey fay ko balaa a fer tëgg bi jël ëllër nag roof ko ci biir taal di ko ëpp jël martu di dóor muy ferñeent di lakk yërëm di tak tàngam mu jox la ko nga bay ci ba pare jël sa gerte jaay jël sa ngooñ jaay ba pare fayoo ko ëllër ba ñakk googu bu la toppee nga àl ko doo dugg àjjana moo tax mu ni kon ñàqu dëgg baaxul mu ni kon ñàqu liggéeykat baaxul foofu la ko delloo nga ne nit ki tëggaloo sama ñaqam na ko laa da ngay dem hôpital soxla deret ñu ñu ngeen bokk groupe sàngee ñu jël deretam sol la kullukum min waa adam min turab seydina Muhammad na ko mu ne ko waa loo xam te ku ñuy wax dëmm laaj maa ni ku ñuy tooñ mun ne ko Maodo ni ko yàlla naa nekk ki ñuy tooñ te bañ a tooñ kenn ndax ku ko waxal nit lu gàtt gàtt safara di fa am ñeent fukki guddi bàyyi faali sekk am nitu yàlla la woon waaye ku reelu la woon benn nit fekk ma ak moom ñu ngi toog ci néeg bi waxtaan bi am ku ñëw ni ko bàyyi faali diw dëmm la mu saar yëngu nit ñëpp ay dëmm lañ kat ma ne ko déet bàyyi faali ëpp naa wax de mun ma saar yow mi sax ci dëmm yi nga bokk de ma ko waa bàyyi faali demal tànk de mu waaw yow lu nga tudde dëmm kuy lekk nit mu ne ma nit nekk ci biiru yaayam ñu branché ko corde ombilical muy naan deretu yaayam ba mat génn ñu jox ko weenu yaayam mu seex ween wa di muucu mu ma nit kuy muucu nit lan la mu ma nit ku sax nit ku seex nit di ko muucu mu ne ma mu nañ ko rafetal rek waaye nit ñëpp ay dëmm lañ gën sama benn cousin ni ma yow man ngay jiñ dëmb léegi man la faali wax laa wax moo tax mag ñi seen xam-xam yooyu mooy jàngale moo doon ni ku ko waxal nit lu gàtt gàtt safara da am fukki guddi tax diwaan bi bind na ci leetre boo xam ne dafa wane ni dëmm amul nee na nit yaram dana tàng muy tudd ko gën a jege di nga bokk nit sax ndey ak baay di ko tudd te Sénégal ku ñu xamul tam la bu la ci kenn nax boo wa rawatina boo yorul dara nag moom nit ku ñàkk moom fu ñu ko gisee tam ko moom ah mos fu ñuy tamee tubaab waaye nit boo yoree ah kii bëtam mii muy xoolee nii waaw ah, moo tax benn kilifa benn waaye dafa ñëw takk ay weer noir fumé ni ko sëñ mbokki fan mu tekki weer yi mu toll ni bëti orange mu ne ko takkal weer mu ne ko ñàkku rab mu ne ko jugal yaay rab <laughs> wa yow moom yaay rab wa yow ñàkk rab mu ne ko waaye jugal yow yaay que nit ñi itam foofu la war a toll su ko defee nag ah lii fi shérif jàngale ngir sunu lépp bopp paafaar ak magam ju baax ji waaye ak sunu jur yaay jatu yàlla na yàlla was ci barke ah ñun de xaw ma de waaye paap de wax dëgg yàlla ak wax ma sax paap jël naa waaye shérif rek lu mu xewle fuñ ñu coowoo daañu ñëw rawatina nag paap mi nga xam ne sunu paap la dëgg yàlla eh, eh, nekk Belgique am sawat ba pare tabarakallaahu la fay tagg Seydina Muhammad moom moo koy def te ci diggante bu gàtt la ko jàng kon dëgg yàlla eh, jataay bi jataay yu barke la waaye jataay yu xewal la waaye rawatina alxaaji Maalik nag wax na fi lu dugg ci xol waaw wax na fi lu dugg ci xol macha allah te te te nag loolu moom mooy jàngale eh, eh, yàlla na yàlla fal cat daañu jàppante ni ko Chérif waxee incha allah ndax ñun ay taalibi lañ te taalibe rek lañuy ñuy wër nag ndax kër gi li sëñ Abdou daan wax nit taalibe rek la fi mën a nekk ndax nee na kër goo xam ne boo ne alaaj maa mun la taalibe la nga ni sëñ Babacar si mun la taalibe la fa mu nit yi faaxat saaxi fi tarax fa yeel mën ni nga soog a alaaj Abdou mu ne man taalibe la waaw kan nga fi kañ nga fi mën a nekkub sëriñ nag mënoo fay nekk sëriñ moo tax lu la jaral nga xam ko boo ca sol bu la ca naxee rek da dalaa neex li chéri wax rek di sol junni téléphone ba pare te kenn du la ca woo ca yow la maa ngi koy ne te dafa dem ci benn kaafu jàmbur di sàcc ginaar yor 15000 kaaf ga ñetti cuuj rek a fa ne bi mu sàcc ñetti cuuj yi 15000 yi wadd ca kaaf ndeke borom kaaf gi moom for na 15000 yi def ci poosam waa ji dem ba xool xam ni 15000 yi wadd la muy topp 15000 yi ba ci kaaf gis ni baaraam yi daal jël nañ jël nañ xam nga baaraam yu jël moom da koy xaw mu xam ne ñetti junni yi daal waa ji for na ko mu taxaw yàgg ni ko cuuj 5000 moom du ko mën moom waaw <laughs> xam nga comme ñetti moom nee na du mën cuuj 5000 waaw <laughs> moom day cher ak man <laughs> waa ji ni ko man day jaay di xàcc moom dama koo tàmmatu jaay di xàcc waaw ñoom def nañ ko jënd rek jaay ci saa si moom ñetti junni yaa réer waaye moom defe na ni waa ji da koy jaay ñetti cuuj <laughs> ah, su ko defee nag ah, ñi ngi jëm ci programme sax laa war a demaat nii waaye bu shérif ne wax dëgg yàlla nañu toog waxtaan ah, dañu mën a def lu dul toog waxtaan eh, sëñ Sidi Ahmed mi ngi doon woote léegi géej waaye Mansour Diène war fa dem ma ne ko léegi bu ma jógee shérif rek foofu laay jëm si waaye wan leen rek suñu xol sedd na ñu ngi ñaanal shérif di ko gërëm di ñaan yàlla yàkkal taxawaayam ndax la yonent bi la waxee laa yahdillaahu bika rajulun waahidun xayrun laka min humuri ni'am nga fexe ba kenn defaru ci diina moo gën nga gañe ci guerre ba jël ay gilleem di ko joxe fi sabilillah te ñaata ndaw nga dégg ñu ne ci xadra bi la ñuy defaroo te loolu tuutiwul loolu tuutiwul maanaam ëpp naa xeeb sëñ Abdou itam xamoon naa ci moom caractère boo xam ne dëgg yàlla ah, daawul nangu jëflante ku ne su ko defee nag kon ah, Chérif ñi ngi am mbégte lool di gërëmaan nag sunu lépp bopp muy alxaaji Malick eh, di ñëw nag ñëwaale kàddu alxaaji dut kenn waaye alxaaji Samba Sambu eh, ngir yàlla ak sunu lépp bopp muy sëñ Pape mi eh, ndax taxawaay bu mu am ci ñun waaye itam gërëm soxnaam bu baax a baax vraiment on vous remercie comme le dit Chérif on sait beaucoup vraiment ci tiens beaucoup à Pape chaque fois ti nous le montres lorsque on est à Bruxelles et on vous félicite on vous dit franchement merci beaucoup et que euh, Dieu vous macha allah ko defee wax dëgg yàlla mënuñu woon euh, bañ a gërëm soxna si ndax dafa jafe euh, culture ni mu jafee Serigne Cheikh nee na même juddu ci kër am fu lay tëj sa baay dafa jafe mooy lan bu la sa bu sa papa nekkee murid boo màggee murid ngay doon par chance bu sa papa dee tijaan soo màggee tijaan ngay doon bu la Michael Jackson jógee boo xëyee reggae ngay def bu la mar Marley jógee boo màggee reggae mu ne nag judd ci lëf am fu lay tëj sa baay lu jafe la kon boo dekkee ci bëgg yàlla gis ku jëm ci yàlla nga bàyyi sa futur fekk ko ci ànd ak moom ca yàlla te loolu lu jafe la loolu lu jar saluer la wax dëgg yàlla ah, ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla wàcce barke ah, yaay jatu yéene boo mës a am ci bis bi yàlla na defal la bu ko ëpp bu ñu yàlla dimbali itam comme ni ko seet bëggee incha allah pap at mu ku ko organisé te mu fekk ñu fi bu ci yàlla àndee lu ñu jàpp daañu ko bàyyi ñëw wettali chérif ndax li sëñ Malick wax rek sërif lii ñuy wax dàqu ñu ko koo wax tey ku ko déglu xam ni waxtaanul parce que bu ko neexoon dugg ci Cheikh Omar Foutiyou mbaa Seydi Hadji Malick mbaa Maam Al Hadji mbaa sëñ alaaj yoo xam ne day tumuraanke nga dégg ko feneen bërki dem rek ci internet bi maa ngi mu ngi nekk loo xam ne nii la néew na ku lay wax leen ci Cheikh Omar Foutiyou ni dañ koo fayee bor papaam moo tax mu judd te nag xam-xam ci dënn mag ñi la nekk dafa am yoo xam ne ndaw du la ko jàngal du la ko jàngal nitu yàlla rek ngay toogal mu jàngale ko nga jub dem sa yoon te Chérif ku ko xam-xam ne nit yàlla ay xaritam lañu woon man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum waaw moo tax nag nitu yàlla eh, eh, du yàlla waaye yàgg na ak yàlla nag waaw dafa am benn nitu yàlla dafa bind ba pare am benn masque nasab bu mu bàyyi xale bi ne ko baat bi nasaboo ko góor gi mel rek masque gi fettax rek dal ci bëtu xale bi bët bi tuuru mu ne ko xaw ma baat bi waaye yow de nasab naa la yow baat bi de xaw ma nasab naa comme déet waaye yow moom nasab naa la yow ki ci nasab rek mar suñ sëriñ daan wax ne xale bu teelee jàng lax dëru euh, xalil teel a jàng ibnu malik bu amul teggin du gudd fan ndax mag day wax nga weddi ko martabaam gaañ la fàddu la doo ko yëg moo tax fokk ñu delloo si waat suñu bopp xam ne ay nit kese lañ ay nit kese kese kese lañ xam-xam bu la jaayee ba nga yëkkatiku nit ku la ëpp xam-xam ni ñun bàyyi ma yi sax ñu ëpp boo gisee bàyyi may duñ wax demee ci Ibris eh, parce que xam-xam bi leen yàlla jox moo bari ba yàlla bu la joxe xam-xam day téye sa gémmiñ ñu bëri xamuñu loolu boo gisee muus du wax ganaar du wax dara du wax parce que xam-xam bi ñu xam buñ ko waxoon àdduna tukki nit dong nga bëri wax parce que xamul dara moo tax boo gisee xisatu yont yàlla Moussa fa asbaha foo aadu umu Moussa faarixat in kaadat la di tubdi bihi law laa an rabana ala qalbiha xamul lu mu naroon a wax mooy ni dañ koo kasful ni Moussa dana màgg nekk yonent Firawna dana alku mu bëgg koo wax yàlla tëj gémmiñ in kaadat la tub di law laa andrabanaa ala qalbiha su ma téyewul woon làmbinam téye xol bi dana wax ni Firawna dana alku Moussa dana dana nekk yoon waaye yàlla ne maa ko nag boole ko moo tax xar xar même buy dee xar buy médd dana tàllal baatam ni nit ñëw a rendi ma bala maa médd xar du dee mukk lem baatam amul bàyyi ma buy dee lem baatam déedéet nit ñëw a rendi ma jaruñoo ma bala la waaje waxoon nee na moog sëriñ bi dañuy reer fay làmp bi e, lu nit ñi rek muy taalibe bi daggal jox ma deke taalibe bi mor sa tayukaay bi la jaawaleeg mbàq jox sëriñ nee na la ko la ko dugal ba ci ba ci digg bu ligi rek nee na mënatoo a dem mu ni taalibe bi ngàdd ma nee na ko ngàdd mu ne ko sañ sañu ma ko mu ne ko ngàdd ma mu ne ko sañu ma ko bi affaire bi gën a yokk nag mu ne ko wutal paaraka ren ren di ma bala maa medd nee na da ko rend bala moo medd ma ne ko nit moom kenn du ko lekk de yow buñ la rend wala kenn buñ laa jariñoo mu ne ko wutal paaka ren di ma bala maa medd waaye yàlla ñu yàlla defal tawfeex ah Chérif rek la ñu ni nañ ko ci sopp Eh, comme ñu ngi jëm ba ci ab programme incha allah eh, ñaan yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam eh, su ko defee suñu baay bi comme li nga wax ñu ñëpp mu ñaanal ñu ñu jëriñoo jataay bi jëriñoo waxtaan wi jëriñoo li fi nekk lépp chérif yàlla bàyyi la suñu kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa tabaarakallahu yaakaar Eh, soxna jotu am na tey lu kenn amul géejawaay yàlla sedd na ko wallaay yàlla rek a tax may wax ndax ñaar ñii mosuñu dajee ci jotaay tey tey yàlla dogal na ñu dajee kon nag am nga lu kenn mosul am ci géejawaay loolu nag yàlla nga ko muurloo ak sa njaboot yi lii rek war na tax fu nit dem xeeñtu ku baax bu doon Pape dafa nekk Belgique nekk ci yeneen du xamante ak sëñ Sidi Ahmed mukk wala su xamanteeg moom it du ñëw fii waaye fam ko xamee ak ca lam ko xam moo tax Louga sori na mu dagg yoon taal otoom ñëw ba fii su ko neexoon it mu seet taalibeem bu ko neex ci Ndakaaru ne ko demal ne Pape damaa am ngant te ngant moom boo ko waxee ci jamono bii ñëpp nangu ko ndax ngant dafa bari te bokkul kon nag bu lemee lépp donte lim wax sax dëgg la ko ko koo xamul noo koy def nam la defa tax loolu dëgg la waaye su ko neexoon tey mu yebal ku ko neex am na ñoo xam ne tey bu leen téléphoné woon Ndakaaru Pape xalifa njaay ci la bokk xam naa seen diggante ko woon ne ko Pape xalifa demal ma ca Géejawaay ca Pape ba nii su woon keneen it ne ko demal ma géejewaay bi kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm eh, di ko ñaanal yàlla yàlla na yegg niw yoon tabaarakallaahu yàlla bu dara fakastal waaw wax dëgg yàlla eh, man xam naa nu ko sëñ du bàyyee woon xel yàlla xam na ko am na ba sax xëy na mu fàttaliku ko muy war a dem voyage fekk ma fa yoon bu gàtt lañ gisante nii mu ne danga war a tukki dem ko bi mu demee sëñ Abdou may wax ay itte yum yum la nawee ah, yàlla sedd na ko waaw fekk mu ne ma ndax xamante nga ak Sidi Ahmed ma ne ko waa ah, xamante nañ mu ne ma ku ku rëy itte la ah, sëñ Abdou nag bu toogee bay seedeel ci nit ak moom ni ko yàlla dañ koy itte xoolal rek li maam Njaay wax léegi di dem bàyyi xel njaboot ni tabaski dana ñëw te xel dana ci demaat mu bàyyi luñ jëndee xar ndax lam daan séddale bañ a tardé xam nga loolu itte la ah loolu itte la bu du toon itte du ko def mukk te du ko mën kon nag xel ni ko sëñ Abdou bàyyee woon xel te fa tabaarakallaahu gis ngeen lim fi wax te waxul dara nag muy moom muy Seydi Hadj Malick kenn waxu ci dara dañ doon joxe rek hors d'œuvre yaakaar naa ne kon tey tant bi yàlla defal nañu sutura muy dogiti cheikhul xaaji malik tabaarakallaahu man de dama koy tiitaroo di ko sagoo muy nag sama sama xarit sama complicité la waaw ñuy wax lu yàgg buñ jotantee téléphone duñ bàyyi dañuy wax rek waaw te lépp lu jëm ci diine ak defar lay doon tabaarakallaahu muy ku ku ku koo xam ne ku xam boppam la waaw léegi damay dey mu ne ma bii sax day amagul immatricule day dem ma ne ko teema ko waxaale mayit sama bos ba bële amagul immatricule waaye am na ko ko waxaale ba pare waaw ba ba fay de douanement bi ba pare njëg gee ci des ma ne ko duma ma la ko livrer de te njëg gi ñëwul léegi du ma leble <laughs> tabaarakallaahu waaye moom muy ku ku ku xam boppam fa tabaarakallaahu koo xam ni boo ko gisee mu toog rek nga xam ne nit yàlla dënk na ko dignité waaw daara jële mu def ca Louga borom daara ji moo ko jox pàkk ba tabaarakallahu mu am fullay tabax ko kon nag di fa jàngale daara la yor nii moo tax ma ne ko seen toog bii du du hasard te bu ngeen xamante maa ngi lay ñaan bésam boobu le 15 décembre bu la fi fekkee daal maag yow ñu àndandoor dem ci ndax lépp la jël teg ko ci sama loxo ba ba maa ko jàpp waaw su ko defee it dama lay teel a wax fii ne yaay yor waxtaan wa ah, yaay waxtaan Haj Malick jeex na su ko defee nag xalifa bi yëg na ko sëñ Mouhamed sëñ sëñ Babacar Si yëg na ko xalif général de Tijane ah, <clears throat> xalif général yëg na ko nee na mooy ñëwal boppam waaw ndax sëtam lay ci mm-hmm. kon nag fa tabaarakallahu ñu ngi lay sant sëñ di Ahmed bu baax ci turu pap ak yaayam ak magam ju baax di di aliyun tabaarakallaahu ak sabin ndax bari na ku nekk Europe bu ñëwee fii fàtte nit ñi da ngeen di dajee Europe ku ne jëlante numéro téléphone waaye boo amul sens balaa ngeen di dajewaat foofa la mook màkk ji ñooyam da ngay gis buñ nekkee màkk ku ne di jox sa morom numéro téléphone waaye bu ñëwee ëf xamatoo sax ña nga dajee loolu bokk ak ñoom xubaa eh, ni ñu koy waxee ci eh, mën naa ak arafa waaw man ñama fa joxoon seen numéro téléphone ci atam booba laa leen nga jógee 2004 ba léegi su ma leen kon eh, nit di topp relation boo ko gisee rek nit ku baax la kon nag loolu nga def tey defal ko géejawaay yépp ndax dogitu Cheikhul Hadji Malick bu toogee géejawaay rek géejawaay noyyiwaat na bi ma ciy jeexale mooy woy juróom maa ngi fàttaliku bi ma mujjee dem ci sëñ Abdou avant ñaari yoon laa fa demaat xaw ma ñetti yoon jàppatuma waaye maag Mansour mi ñoo àndoon keroog mu ngi ma naan dama war a xëy suba teel dem Ndakaaru ma ne ko góor gi kon kañ niñ mu ne ma mukk daan def la ñuy def waaye dama bëgg a xëy suba teel dem Ndakaaru ndax góor gu baax xaw ma xam nga ko shérif wala déet ma ne ko kan mu ne ma sëñ Abdou Karim Sarr moo tawat ba nekk hôpital ma bëgg a dem seeti ko ma ne ko ah xam naa ko góor gi ma ne ko fa tabaarakallaahu mu ne mu ne ma ñooñu sëñ kër Si daal bàyyi woon na leen xel waaw na bàyyi woon na leen xel ndeysaan wax ci luy sore sore sore nga xam ne nga yëg ne du deret ji rek moo tax mu bëgg leen ah? ca ëllëg sa la génn àddina waaw ca ëllëg sa la góor gi génn àddina waaw euh, sëñ Abdou wax ci moom lu bari ndeysaan keroog lu bari la wax ci moom ne ne ne mu ne ma waxuma la dara waaye ñaan ni ko yàlla dënkee woon ijaaba ci ñaan rek kenn mënula ko wax keroog sëñ Abdou wax na ma ci moom lu baree bari ne ma sëñ Babacar si ku ko bàyyi woon xel la waaw kon nag ñu ngi lay bu dee saw kooku mooy sa wayjur kooku bu nekkee sa wayjur yow loo defati rek xeeb ko waaw loo defati rek xeeb ko tabaarakallaahu ndax boo amee woyu jur bu baax rek dugg nga soxla ndax ku la gis rekk sa xel ci moom lay dem waaye lii nga fi sotti tey tabaarakallaahu ñëpp mën nañ ko jëriñoo ñëpp amaat nañ bind bu bees taq tabaarakallaahu yaag Haaji Malick moom xam naa ni dinaa fexe rek boole leen benn tànt rek ngeen lakk Sénégal benn yoon ñu dem àllaaxira tam xaar <laughs> ah waaw <laughs> dinaa ko organiser de bu soobee yàlla xaw ma kañ la de naa ko organiser incha allah bu ko defee rek ndax Sénégal ñu xam ne am na ñu baax ba tey euh, relais bi du xam ngeen relais daw boobu boltan daan daw Usain Bolt waaw kañ loolu mooy relais du boobu relais am na relais bu mu daan daw waaw kañ relais ka koy jox du taxaw ñu xam ne mag ñi liñ yoroon am na ñuñ ko jox ba pare am na ñuñ ko jox ba pare te wallahi ñiñ ko jox ñii ci lañ bokk ñaar ñii ci lañ bokk parce que am na loo xam ne boo ko déggee dangay xam ne lii du waxi xam-xam kese am na lu rax am na lu rax ci biir li rax ci biir nag mooy yàlla ju set wecc ju raxul dara te loolu mag ñee ko yor yàlla ju set wecc ju raxul dara mag ñee ko yore ku ko bëgg di nga dem ci ñoom ku ko bëggul nag demal fu la neex waaye billaay booy wax kenn du la déglu démb rek am na jotaay bu ma dem pour jox bàyyi di ba mu ñaan laajal Mansour dama bi tëdd ci naaj am na koo xam ne fa la nekk dama ko mujj yërëm ci ñi weddi mag ñi la bokk lu ne wax na ko bunt bu nekk dugg na ko lu ne lu ne wax na ko waaye daal billaahi wal kitaabi Sidi Ahmed dix minutes laa jël bi ma génnee xam naa ne xol ba sax jeex na awma fu ma jaar ma ma déy ki ma dendal ne ko gis nga mag ñi boo leen contré dañ lay toroxal ci jotaay <laughs> ndax la nga bëgg na bëgg lañ lay xañ waaw kenn du la déglu mu ngay wax waaye kenn dégluwu ko ma ne lii lu ko gën a noppale nga ne alaaji Malick nee na sëriñ tuubaa nee na lu mu lay wàññi te wóor na la wóor yàlla li alaaji Malick bind ak li sëriñ Touba bind dara génnu ci charia ak sunna waaye xol bu ñuul ak xol bu bon tax na doo tudd alaaji Maalik doo tudd Serigne Touba moo tax sa soxla du faju su soxla du faju mukk abadan kon nag yal na yàlla dolli sutura Sidi sëñ Sidi ñu bàyyi ñu jox bàyyi di ba mu ñaan ci sa ndigal su ko defee rek ah ñu eh, joxante rendez-vous incha allah beneen daje bu mel nii wala ca alaaji Maalik rek ca Thiès incha allah yal nañu yàlla may ñu dajee fa ah yéen ñëpp du dégg ngeen ko le 15 décembre Thiès Xaaju Malik incha allahu taala sëñ Sidi Ahmed bii nag lu fay neex ak lu fay def du ma ñema wax lu fa naqari ndax moom du def lu naqari waaye lu lu fay neex rek teg nañ ko ci loxo incha allahu ndax dogitu Seydil Hadji Malick moom ñemewu ma wax leneen ci moom te ma ci moom it leneen lu dul yëg ngeen ne keroog bi mu demee TFM Sénégal yëpp siggi nañ ba léegi ñu nit ñaa ngi koy waxtaanee Sénégal yépp a siggi waaw foo tourné ci Sénégal ñu naan Sidi Ahmed Sidi Ahmed ma ne euh, cat la leen yéen de yóbbu laa leen si yàlla na ko cat seexlu te incha allah dina ko seexlu sax ndax maamam sëñ kër si du ko bàyyi incha allah am na koo xam ne mag ñee ko wax loo bu waxee dara xool ba rek waaw xool ba rek incha allahu taala ndax ñii tey liñ mën a waxal diine ku mel ni moom ku mel ni Hajj Malik ku mel ni tafsir Abdourahmane Gaye ku mel ni Chérif Maamin liñ mën a waxal diine mu saf nit ñi dugg ci biir xoli nit ñi keneen mënu ko waaw ah, nit nag lim am bàyyeeku ko li wa ci lay boo bëggee jàmm bàyyeeku ko yal na leen yàlla sàmmal boppam nim sàmmee asamaan ba rëññeeluwul kenn mësul dégg trambalement de terre bu asamaan amut te du am ba yowmal xiyam boo amee rek bés pénce yi ñëw ni ko yàlla sàmmee nag te ak kenn gisul kenn bu ko téye bi xayri amadin taraw nahaa la wax kon am na amad taraw nahaa bi lañ xamul waaw bu noon bi xayri amadin rek ñu xam ne amul amad ah? taraw nahaa ja nag moo tax ñu xam ne am na amad mooy kenn yàlla dafa ne maa téye asamaan ci kenn gu nit man keno gu nit man te teg bëtam comme am na keno keno ga nag moo xam ban keno la ba asamaan rëññoo la wut te kenn doxagul benn ma teggi keno gi am na nit ñee gën a ñeme yàlla waaye gisagoo ko dox ba mu yàgg mu ne xaaral ma teggi keno gi téye asamaan ndax mu ngi nii amul bi xayri amadin taraw naha comme asamaan nag yàlla def nag mosul rëññeelu te du rëññeelu mukk yàllaa ko sàmm nam sàmmee asamaan nag ba rëññeeluwul yal na leen ko yàlla sàmmee yow sëriñ Sidi Ahmed Sarr ak Hadji malik Diop ak tafsir Abdourahman gay ak Chérif Mamin Haydara ak Iran Ndaw yal na leen yàlla sàmmee noonu ak ñi ci des ñépp te mel ni yéen yal na leen yàlla sàmmee noonu bu leen ko sàmmee rek diine ji dana mos a jag te wallahi mu ngi jag de ndax yu bari tey kenn ñemeetu ko fi mu ne nii ay xumbal di nga fi teg baas rëkk rëkk rëkk rëkk lu yàgg door a gisi nit ah ku gis vingt eh, trente et ni mu daan mel ca jamono yu njëkk ya léegi 31 day am ba jàll ñu ne la démb la woon nga ne ah 24 décembre day am ba jàll ñu ne la démb la woon nga ne ah anniversaire caaxaan yi kenn gisatu ko ah wàññeeku na bu baax te ñoom ñii rek a tax ñoom ñii rek a tax loolu nag yal na sax yal na yàgg yal na bari po yal na fi jeex yal na raaf po yal na fi jeex yal na raaf waaye yii ñuy taxawal ñoom yal na bare bare bare bare ba calendrier wu janvier ak sax du ko matal yal na ko yàlla def te lépp nag ànd ak yokkute ak yiw ak mucc ak mucc la ak téeméeri at yu mat sëkk kenn ku nekk ci yéen ak ñun toog ba ne tey laay feete nag sama téeméeri at bàyyi diba yi toog ba feete téeméeri atam pap diba ëffal ko sondel ba defal ko fukki salaatul faatiha ak ñeent muy muy ñaan nag lu ca dolle ku fekk mu ngi ànd ak wér ak wérle ànd ak mucc ak mucc muccle te bu xoolee poosamit fekk ca xaalis bu mu doyewul dara di compter rek xam nga màggat moom doyewul dara xaalis moo guroo yem ci moom waaye na koy gis rek di ko wàññi rek waaw màggat <laughs> fi mu ne bàyyi di ba lu muy doyee xaalis doyewu ko dara waaye fi mu ne nii bu ko ñàkkee dof waaye na ko gis ci poos bi rek bu génnee rek gis ko rek muy ay liyaasu cinq mille ak i dix mille mu ne ah waaw kañ baax na bu ko defee nag yi guroom jaaxaan naan ndoxam waaye bu xëyee gisut benn cinq mille ci poosam pap di ba doom jàmm waaw loolu màggat ak guro ñoo ànd ak xaalis ci poos yal na leen ko yàlla defal te ñun ñëpp jeunesse bi yal na leen yàlla sàmmal boppam jeunesse bi yal na leen yàlla jox lu ngeen di joxe yal na ku ci amul liggéey yal na ko am ku ko ci am yal na ko ko yàlla sàmmal ku ci bëgg a tukki yal na tukki su tukkee xéewal ba muy uti yal na ko am su ko amee yal na ko bokk ki mbokkam kuy jàng yal na am xam-xam te am barke xam-xam ñi toll ci sëy te amaguñu borom kër yal na leen yàlla dënk ay borom kër yu leen mën a yor te yërëm leen ñi ko am yal na leen ko yàlla sàmmal sàmm seen digganteeg seeni borom kër te jox leen njaboot yu barke ñii nga xam ne toll nañ ci deñ denc soxna it waaye buñ làmbee seen poos tiit ndax yaakaaru luñ ko yore mm. yal na leen yàlla bettee ay xéewal ak palaasu liggéeyukaay yoo xam ne daañu am lu ñu def ci seen poos takk soxna indi ci kër gi di xëy di joxe dépense ba xëy tabax kër dugal ko ca yal na ko yàlla def ñun ñëpp nag ñëpp nag laa ko yéene ñëpp unanimité fu nit di yeewoo ci Sénégal rek yal na ko ko yàlla defal ah politiciens yi ci seen jamono lañ toll mbokk mi ci gannaaw ci la bokk jaw ah? njaga jaw yaa xam loo bëgg ci politique bi Hajj Malik junj na la waaye dara yàlla bu la bëggee bettee xéwal wa man yattaqillaha yarzuquhu min xaysu laa yaxtasibu waaw kii ma lay wax ni mayib mayib aan bii ba muy dem France sama xarit a ko hébergé billaahi wal kitaabi sama xarit moo ko hébergé laaj ko ndax boobu dafa dawee fii damay bañ tudd ndax boobu of naag ñu ngi leen di seet doon te deful dara sax waaye xam nga gor bu ba bañ ku ko taqal ñu porté ko plainte gannaawam gañe na plainte boobu moom ba ñu defaat nañ appel mu gañe leen ba ñooñoo ngi ci troisième appel démb la ma koy wax ñu war koo fay xaalis ndax dañ taqal deram mu génn ànd ak soxnaam dem Paris dóor leen plainte gañe na leen ba fi ne dañ ko war a fay mu dem nag yàlla boole kook Macron ci campagne yi Macron bëggal ko bopp faf Macron gañe def ko ci wetam ne ko bul yàkkamti mu ne duut mu duut ko séjour dik ko nationalité jox ko kër utal ko liggéey ragal yab yàlla la mayib ànn la tudd ci bras droit Karim Wade yi la bokk bi muy dem zéro franc la demee zéro franc zéro ci gor boo xam ne amoon na lu dul jeex Sénégal dañ mën a toroxal gor bëgg toroxal gor bëgg toroxal gor ba muy dem zéro franc la demee ànd ak soxnaam sama xarit a ko héberger damay bañ a tudd turi ki ko héberger ñu xam ko mu nekkoon ci condition yi difficile ma fekk ko fa ne ko toogal muñ rek bu dee dañ la tooñ yàlla dina wa man nasru illa min indillahi yàlla dina ñëw ak ndimbalam man aw WhatsApp waaye keroog barki démb sama soxna la ko envoyé mu toog ak Macron Macron mu jox ko loxo ñuy waxtaan ñoom ñaar mu wax ma bien yi ko Macron jox yëpp ak lim ko defal. yow aw ma WhatsApp man sama téléphone sax dinaa toog de 24 heures 3 jours 4 jours incha allahu à partir de mardi ba décembre balaa ma nit di jot dina xam ne yàlla buur la ndax sama piis yi sax dama koy dindi. billaahi wal kitaabi mardi lay dindi piis yi. bu kenn nag jotuma shérif laaj leen Mansour mi billaahi wal kitaab bi mardi laay dindi piis yi ba décembre <laughs> piis yi laa wax de damay rocc piis yi mardi ba décembre ndax du ma fi toog toog bu ma nit di jotee te bëgguma nekk ca bitim réew di fayal kenn crédit du ma ko def ndax bu ñu lay woor yaay consommé wala déet yaay consommé da ngay fay te du ma fayal kenn crédit bu ma nekkee fii nag ku ma woo appel en absence sax ma rappelé la yéen ñëpp xam ngeen ko appel en absence sax moo ko gisee rappelé borom waaye nag dafa am loo xam ne moom sama sama doxalin la billahi wal kitaab bi mardi ba décembre balaa ma nit di jot di nga xam ne yàlla buur na piis yi laay mardi laa koy rocci mardi 23 heures ma rocci piis yi waaw dama leen di wax yéen ñëpp ngeen dégg ma bañ kenn rek naan jotu ba shérif ak nangam nangam waaw ah, ñëw ñoom Mansour Guèye ñii man awma whatsapp awma Viber awma mail awma dara allo normal laa xam raccroché mosuma ci am benn benn loolu nag dama koy wax ngir rek ku ko mën a am it mën nga ko am baax na de ndax léeg ñu bëgg ma yónnee ay këyit dama naan yónnee leen ko bay di sàll yónnee ko bay di sàll mu imprimer ko indil ma wala ma ne yónnee leen ko baarawan ñu yónnee ko baarawan mu imprimer ko ci mairie bi jox ma bañ rek comme mënuma wax dëgg am naa ñu mën loolu rek laa ci jublu ah fas alu ahla zikri in kuntum la taalamun kon nag bàyyi di ba ñaanal ndax sëriñ bi ñu bañ koo lor bismillah ñun ñëpp ñu tàllal loxo yi ci ndigalu sëriñ Sidi Sëriñ Sidi Ahmed Sarr na ngeen ko xàmmee xam naa ne sax xam ngeen ko waaye na ngeen ko xàmmee toogal toogal rek dañ lay indil micro bi na ngeen ko xàmmee bàyyi ko xel dogitu Seydul Haaji Malik la waaye fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin doxewu ko waxewu ko te man xam naa ne mag ñi bàyyi nañ ko xel même Thierno Bachirou Mountaga daax Cheikh Oumar waxtaan ak moom waxtaan naag Thierno Bachir ci ay mbiram Cerno Basiir xam na ko xàmmee na ko ràññee na ko mag ñii ci jamono yàlla dënk leen jamono tey bàyyi nañ ko xel fa tabaarakallaahu kon nag yéen waa Géejawaay si rawati ñun ñi des ci tant bi am nañu chance nañ ko bàyyi xel bu baax fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqin allahuma la adurru allahuma la adurru allahuma la adurru yal na yàlla defar la jàmm sutura daa iman sutura daa iman sutura daa iman kon bàyyi di ba nga baal ñu yooyu toogaay bi incha allahu taala yaay suñu kilifa yaay suñu lépp kàddu gi nag sëriñ Sidi Ahmed moo la ko jox pour nga ñaanal mbooloo mi bismillah uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ nag dañu leen di sant ak ñi nga àndal yépp waaye ñaan gi moom dama la ko bëgg a delloo ndax ñii fi toog ñëpp dañu am ay soxla am ci ñoo xam ne wéruñu kon nag sëtub yonent bi bu teewee man mënumaa ñaan te nga nekk fi dama lay delloo ñaan gi rekk nga ñaanal mbooloo mi ndax yàlla faj ajo kenn ku nekk li muy yéene bëgg ko na ko fas ci xolam rekk yàlla gis na ko su ko nga defee nga defal nu ñaan ndax sama ñaan mën naa ko waaye sax ñaan laa gën a wóolu kon dama bëggoon nga dimbale ma rek nga ñaan ndax sa yéene nag àgg na ndax teraanga bu nekk defal nga ma ko waaye nag ñaan moom yow laa ci gën a wóolu ci suma bopp ndax la ko waral bari na li nga wax nag ci wàllu mag ñi man gëm naa ko mag ñi dafa am lu leen yàlla defal 1968 bi ma daataan génn Sénégal def onze pays ci Afrique noire këru diine gu nekk dem naa fa yendu fa fanaan fa bu ma ñëwee ñu ne ma sëñ bi daa jàpp ma fanaan su ma fekkee sëñ bi mu ñaanal ma ma dem ba këri diine yépp daj ci senegaal euh, ñaan yooyu nag moom ma fi bàyyi waaye ñi ma fi àndaloon ñu jiitu ma ñoo ma pële woon lépp gëm na waaye nag mag ñaanu mag ñooñee moo ma fi bàyyi ba tey li nga wax ci mag ñi loolu man dama koo gëm dama koo gis kon li ma doon ñaan ma jox la nga ñaan rek danaa la ñaanal nag njëtti isa jaa nasrullah ñu dugal ci aajo yëpp bismillah ahsantu bi rabbil izzati wal jabarut wa ahsantu bi rabbil mulki wal malakuti wa tawakkal ala hayy lazi la yamut اللهم اصرف عنا هذا الوباء ونجنا من التعني والتعول والبلاء بلطفك يا ابني يا ستار انك على كل شيء